sëñ bi nee na war na tiin bu set ba it na ko biral bu dee bu set la bëgg mu ne ko teg mu set waaw xale sin wala bu tuut bu ko neexee mu ne man bu bu am ay tuq laa bëgg nee na wa fil ayawaani naka noonu it bu salam le di topp lu ndëf na ko biral wa sinnoo ak atiya wa sukoorata ak góor bu góor laa bëgg wa sam na ak bu duuf ba di day maag seen ñaari safaan te mooy bu jigéen ak bu làpp dégg nga de sëñ bi nee na wa fil lahmi war na mu dolli ci yàpp xaseen yàpp kapaanga waraa yan ak gàtt buy sàmm la bëgg bu dee gàtt kapaanga ne yàpp gàtt kapaanga la bëgg bu dee gàtt buy sàmm nga ne ndax am na ñoo xam ne yàpp gàtt bu nekk ci àll ba moo leen gënal xaw ma loppatal wala muy bu ñu yaxal waaye laa nañ ko jël bi ndox muy demee ci wet na nga ma jaay ci wet bi rek loolu wóorul nee na wasi rek xin dana dolli it ci jaam bu fekkee ni jaam ngay salam la di ko topp alxadda doyo ba jaam bu toll nangam dégg nga di ci guddaay wala bakaar si ak xiif ga jànq wala wala ak nelaw na ko biral xaala wakkat di ay bi ak borom ñuul ñuulu bët bu rëy maanaam koo xam ne bët ya dafa rëy wata kasu mu ak sumaru xar kanam na ko biral ba bi soo dun itee malaan na do bu dee salam la di ko topp na biral dégg nga de xeetu malaan wa riqati ak wayaf ga wa safaakati ak fatt ga wa di day ma ak seen ñaari safaan te mooy wayaf ga dégg nga de safaanam mooy tal dégg nga de ah seen ñaari safaan na ko biral dégg nga de kon sëriñ bi nee na safaanu wayaf mooy tal fatt noonu dégg nga de yaraa mu ni wa fi saytu bi lay diw moom itam na ca biral almuxtar lu ñuy nale la mi ngi ci moom su fekkee da ngay da ngay da ngay salamle topp diw na ngay seet diw ba ndax saytoon ngay salamle wala seen sin teloy duñ ñoom ñaar te bi ma ak la nga xam ne suru def na ko naleen lii ci lool lañ koy segale na nga ko biral boo mel ne yonee ko nag cil joy di ci rafet alxaali di ci loxoy not boo salamle di topp nit mu andil la la nga salam la nga ko joxoon la lam la waxoon ñu seet ndax loola rafet na ci xaalis maanaam bu fekkee lay xaalis mooy li rafet na loolu wala di in ñaaw ga it def na ko yan alal xaali di ci loxoy not wa ilaa ngeen dara na war suñu dem ci digg doom dama yoon tat salam la xab dirox si maali kullihi wa an laa yekkoonaa sa amayn wa an yu ajjëra bi maalumi wa an yut bata wa an tubayina si sa tuur da nga de su ko defee nga ni bii mooy sàttu juróom mbenneel ba wa kaw nuhu ak nekkam day nan di bor si baatu muslimin ilayhi nga nekk bor sàttu juróom ñaareel ba wujoodoot ak amam inda ulooli fa su ayam maanaam nay loo xam ne bu dig ba jotee mu mën a am waaye ñun xataa doonte dogoon na xam loolu ak jëkkër xam nga tey boo joxe woon xaalis ci cooron di topp gerte gerte bu nawetee dana rak waaye nag buñu demee ba loolu gerte amaat kon dagan waaye laa na si ayawaan ño ko mën njël tënd ndëk salam la di ko topp doy na loo xam ne ràññeef na ko da nga ko di ca gàtt jiw yo rek nga may indil naa nga ne gàtt ah waxaale ci néew du ndëpp la loolu dëgganul ndax loolu xaraam ndax mën naa am du dem du ko am aw xaayit ni wala làkk làkku diw ba rek nga ma yëpp nañ ñettam salam la di ko topp nañ ñettam làkku diw wa sori te sa teef ko ah bu boobaa kon awaayit ni wala làkku diw kooku dëgganul ndax xaraam nga ni wa sori te sa teef na dégg nga de sëriñ bi nee na foofu wax bay foofu la yem wa surita sa teef na ci pas-pasu salam suñ su mayeen dem ci lépp mooy benn sax sart ñaar bu seetul ayati ak làkku yaatu làkk ba ba la nga salam le la nga bëgg mën caa génn sàpp nga tal boo koy bitu xab di ak meloo nëbboo ndax da nga koy nëpp ci toftale wala da nga koy nëpp ci ndànk-ndànk sàpp wa nag sàppee na ci mu salamle ko li maali ci ñal aji moom maanaam ka ngay salamle meññet ma na moom lakk waaw waaw sàpp bayit wa juróo ak xarafum ca dog maanaam meññet ma da ngay daal di tàmbali di ko wax léegi da nga de sëriñ bi nee na way indi ni ci sëriñ donte dafa yeex ba genn wàllu weer dagal waxtu ak jàppam jëfran bi naar da nga de na nga maanaam meññet ma kat bu xasee ba naar mooy boo xamee ni ñor na doo nekk ba mu wow waaye laa awruta ban wala mbanax ca nga koy jàpp waaye laa tamit doo bàyyi ba ba mu nekk tàndarma ji wow koŋ ndax danay bañ diggante foofu yi muy nekk naar ak rutat tàndarma ji bala moo àgg ci wow jëyee tànn te kon salam sa day daal di am mbir day daal di am problème maanaam kon nag sàpp nañ ci nañ ko jàpp ca ba muy naar wala mbanax fayin sa fayin sarata ndem sàpp te sàmmura rut bi wow tàndarmay mbanax ah madame wéy de bi kat bii ci ngëb kooku bokk na ci njaay mu yàqu mu ñu wuute woon ci buñ ko ngëbee waaye buñ xasee ngëb mu wér maanaam da ngaa saramle tot na ñettum làkk bu ñu ràññee sàtt ne ah damay bàyyi ba meññet ma wow ma door koo ngëb tere woon nañu lool waaye boo ngëbee meññet ma wéy na mu ni wax ak jaamu yàlla al musliya meññet mu di aju ndax kasaalika dañ koy def ne ci sa samura rut bi dégg nga de aw wa ale ci wax jooju la sukkandikoo rek soom la gën jaa bañ ci borom xam-xam yi te kon buñ ko ngëbee mu wéy aw wala moom tay bu fekkee meññet mu wëcc la nga sàtt ak woom xal bay dañ koy def ni ci njaay alfaas njaay ji yàqu te kon dañ koy firi dellu ca xayma taawi laa ni am na ñaar jëm sax boobu yom xëy nañ xata ndeem dagg na dégg nga de rajo amu dellu di ci ciment ci la nga xam ne wayen xata ndeem dagg na maanaam nañ ñàkk rajo amu dellu di ci ciment ci la nga xam ne bàqee def mu ne booba baa nag waa jaam yàlla ndax day dellu alal xiimat ca xayma ja waa li sox jooju sukkandikoo nag sër gën a bari ci nit aw alal màcc yi wala ca natt ba lay dellu taawi laa ni am na ñaar jëm ñu tënk xam ne dangaa salam le di topp nañ ñàkk yàlla dogal nga jox ko téeméer ak juróom fukk di ko topp ñetti dabi usuf nga jël ñaar ya meññet ma dox kon nag juróom fukk léegi ñu ne buñ nee dañuy dellu ci xayma dañ naan ndab li def luy xaymaam ñu ne nangam mu jox la loola waaye buñ nee dañuy dellu ci natt bi rek kon dañ naan ñaari dab yi mu jël ndab bu ne juróom fukk la jël na ñaari dab muy téeméer mu wëlbati ko mu def juróom fukk mu dellu ci sulu si njëkk comme benn ndab la def ñu jox ko juróom fukk mooy sulu si njëkk mu ne waa jaam yàlla xarit dëkk taqiru bu daa ji ndawe ndax ka nga nga sanam la di topp meññitum dëkk bu ndaw ndax kataalika dañ koy def nit yi sanam la di topp meññitum làkk bu ñu ràññee ba ci sàppe yi jiitaloon yëpp waxoon nañu ko aw wala moom ay sanam la di topp meññitum dëkk bu ndaw dégg nga de xanaa sëriñ bi nee na danañ koy def nit yi sanam la di topp meññitum làkk bu ñu ràññee ci sàpp ya xanaa ilaaj ñu jóobi ci ajiri naqi bi ndara nag ci waru gaawe teewal ga fiihaa ci dëkk bu ñu ràññee bi moom nga gaawe joxe rasumaal bi ci teew ji moom di ko sàpp aw tuxaalifa wala dana wuuteeg moom dana wuuteeg sanam la di topp la ñettum làkk bu ñu ràññee fii ci war a gaaw a teewal rastumaal ba maanaam fii ci war a gaawal rastumaal ba wa mais ñett na dégg nga de gaaw a gaaw a gaaw a teewal rastumaal ba akay dégg nga de wa fi salamin ak ci dagana salam day li man ñeel koo xam ne laa min te dee ci moom lahu du ñeel ko te bu doon làkk baa daganul nga di ko salam de ku ko moomul taawilaatu am na ci ñetti jantam sëriñ bi nee na way ñun xataa ndeel dagg na maam na ñett moo xam ne loo ñëw la ko ibaanul jamono dangaa sanam le woon di topp na ñett yàlla dogal mu am jamono ja na ñett na daal di dagg ku ne tànn ndox ci kanam almustari aji jëm ci fas ci siri gëmal ibqaay ak defal su ko neexee comme nga bëggul dara ñu ne na ñett ma ràcc kon ku boobaa ñu tànn loola yow muslim bu la neexee nga firi bu la neexee nga defal aw min xaritin mu ne mu tukkee ci dëkk ku ne tànn ndox ko dégg nga de nekk dangaa sanam le woon di topp na ñett ñu dëkk yàlla dogal mu dox ku ne tànn ndox almustari aji jëm ja te mooy muslim dégg nga de ah seen fas ci siri wa ibqaay ak defal noonu lañ koy tànnaloo sëriñ bi nee na wayen xabara ndéem booba nag daa nga bul te la mu te meññat ma dara wayen xabara ndéem ñoom ne albada lenn waaye war na taaxir yeexe bi daal ñëpp bu fekkee nag xas na ñëpp dara maanaam doxo salam lewoon nga topp fukki dabi usu nga ñëpp ñetti dab ya nag ah meññat ma door a dog la ca def da nga koy topp bi daal ñëpp di yàlla rek boo d'accord ñoom ñaar bir moisé ba ci réglante nga xam ne da ngay jël ñetti dab ya la ca def ñu delloo la ko xaalis kon dina baax dalaw kaana dootu nekkoon na rastumaali bopp jur ga mu xaw man di lu ñuy xayma yi du tee ma ne naa seet la la nga jël ci meññat ñu xayma la ca def rek ñu delloo la ko dañu war a jël su dagal na salam la fii maa di topp loo xam ne su dee ko toog def na ko loo xam ne dañ koy togg dégg nga de dagal na salam la ko di ko topp sëriñ bi nee na ah walu leen wurus ku loolu dagal na salam la di ko topp moom itam waxan bari aruusu an ba dagal na salam la di ko topp wal jaw ari jawhar dagal na salam la di ko topp wa sujaajin weer dagal na salam la di ko topp wa gisin joor dagal na salam la di ko topp wa sirni sin mbellum sarneex dagal na salam la di ko topp dégg nga de wa amaali affaire bi safi maanaam mat dagal na salam la di ko topp wal adami der dagal na salam di ko topp waaye du la ci màndaxe dafa xaban wa soosin ngëndal dagal na salam la di ko topp di la ci màndaxe bari go nangam waaye laa di gis waxuma ak ay say déedéet ndax say dafa mën a ëppante wa siyootu jaasi moom itam dagal na salam la di ko topp li di kàmmile ngir la motli ko ci kanam tuuti wa sawrin teere dagal na salam la di ko topp li di kàmmile ngir la motli ko dane wa siraaw dagal na jënd lañ jaay min amal ci kër ci aji saxoo jëf kal xabaa si ni ci mburu waakoon waa ji bis bu ne mu lakk mburu dagal na nga jënd ci moom taw boobaa su boobaa nag waxoo moom loolu bay un njaay la lay doon bu dee njaay nag kon sat bi nga teewal njëgga bu la neexee mu di la jox mburu ba weer wi dee nga doon koo fay wa inam ya doon del jëfam saxul nga xam ne day def léeg-léeg mu jëf léeg-léeg mu jëf foofu moom salamu salam la kon sat salam yëpp daf koy tàbbi mu ne mu di leen réléel ci maanaam dagan gi ci anamuk salam la te si naa yi say ci ni ki sàkkoo la jëylu jaaj aw sal jën wala teg dégg nga de la jëyal ma ay jaay ci la dégg nga de ci nangam dagal na wala sal jën wala teg waaye dagal na ànd ak sat salam yooyu yëpp la nga xam ne dañ koy seddal at bi melal ko jaaj jënum war a mel ak yi ca toppoon boo fasada yàqu na da ngay wax ah di sa yeneen maamooli ci ràññee suñu jëf ñu ni ci moom boo ko nee jaasi nag bu ko nee jaasi lañ ginéen sàngam rek laa bëgg ah na ci weñu Guinée rek laa bëgg wala weñu Mali ah doo topp la bu man awil amin wala amin ja na ci tëgg sàngam rek koy tëgg kooku da koy yàq mais way sran leen jënd almaxmoola lu ñu jëf la ñu ni ci moom ba saajoroo mu yoole ko dangaa jënd leen bi ñu jox tëgg bi ne ko tëggal ma ko ma fay la nangam jaasi mu dagal waaye insara andeem xaraf na ko de moo xam ay na ràññee na ko amin yow aji jëfam aw laa wala ràññeewu ko néew ko doo koy tëgg wala wax nga ko waaye laa fi maa dagalu seen topp loo xam ne laayam ci lu jot ngima foo ak maloom ma taalam ko trabi ma di nit suufas ndel xam nga suufal ndel kenn mënu ko melal dagalu sonam di ko topp wala ardi suuf nii dagalu sonam di ko topp ko daari kër dagalu sonam di ko topp ndax kër mën naa mel nu ne mën naa baax lool mën naa bon lool mën naa digg doomu wala gisaati jóor dagalu sonam di ko topp jóor mooy lu ñu xamul ab wañam wala limam wama ak loo xam ne laay judi ma ne su ko am bu waxtu wa jotee ñu ci xibaaru loolu wóoru su jamaa nga bokk ko sonal ni di ko topp wu mag wa loolu wóoru waxadi din weñ di ñuul moom itam dégg nga de dagalu sonam ne di ko topp ah da nga def ci sootin di topp jaasi maanaam da nga naan wa addilul daganul kanam la lañ ci nuur ci sootin di topp jaasi nga joxe lañ ci nuuru topp jaasi daganul ci kanam tuuti dafa xam in lam yaxruj jëm du mën a in lam yaxruj wa in lam yaxruj donte du mën a jël min ki wen gi ñu lu siyoo fa ay jaasi daganul sax leen siyoo di jot jaasi ndax salam la wen gi ñu topp jaasi mooy salam la mbir rek la topp camba su boobaa kon loolu dina def dégg nga de sëriñ bi nee na wa ak ak ci safaan bi te mooy salam la jaasi di topp wen gi ñëw kooku it daganul sëriñ bi nee na waaye nag masala moomu am na wuute ndax daañu seet diggante ba ndax wen gi ñëw dama def la ko fàttagal yu demee noonu daal suñu bopp waaye daal cosaanal wax bi daal mooy ñàkk a dagan salam la wen gi ñëw di topp jaasi ak ñàkk a dagan salam la jaasi di topp wen gi ñëw nga ne walaaka tan jéegéen wattin xalifa mu daaji tal daganu salam la tirax ci topp wattiinu xol ko ci lanu salaan leen ëpp leen ñoom ñaar waaye buñ leen ëppee nag ba noppi bañ nekk pokki dagana salam la wattiinu foor di topp xol ko rasoo din malaan daganul salam la yu kàmmi na ngir na mottali ko dégg nga de ndax boo fekkee waa ji mooy rabba malaan nga ne ko mottali ko kooku la tax daganul moom itam day bañ mu mottali ko ci melokaanu bokkul ak la nga bëggoon wa mas noo in nga ne lu ñu jëf ko dimal loo xam ne jiitaleef na ko muy rax sumaal dégg nga de ni ko jaay si di ñu tëgg ba noppi nga def ko muy rax sumaal di topp lañ di ñëwul te laa yoxoo di mën ko dellu xëy na sama at di dégg nga di jàpp li jëf kooku moom itam daganul maanaam li mu bëgg a wax mooy tey nga def rax sumaal jaay te jaay si jëm mën ko dellu du weñ di ñuul dégg nga de kooku moom itam daganul mooy li ma waxoon léegi rek daganul salam la lu ñu liggéey ba noppi def ko muy rax sumaal dégg nga de di topp loo xam ni mooy ci saan mu ne kat ni ci fukki da nga naan nga naan daganul salam le dégg nga de maanaam wëttéen fokki daganul salam le di topp wëttéen salam liggéey fokki di ko salam di topp wëttéen daganul ndax fokki mënees na koo delloo mu nekk wëttéen moo tax yahudu jooju dañ daan wax ni laaj buñ ko dindi woon lay jëm maanaam moom mas noonu daganul salam lañu jëf ku di ma loo xam ne jiital na ko yahudu loolu dana dellu xëy na sanati di jàpp li jëf nga xam nga fokki kalkati ni ci fokki xam nga fokki cosaan waaye man nga ko firiwaat ba mu nekk wuteel kon moo tax daganul salam lañu topp wuteel moo tax laajooju boo ko dindee lay gën a neex nga ne bi xilaati na siróot naag rabb lu ñu rabb ba noppi nga xam ne kenn mënatu koo delloo ci wuteel daganul salam lañu topp wuteel xilaati yaabal xis nga dem balaa na xis moom daganul salam lañu topp wuteel ndax balaa na xis moom mënees na koo delloo léegi mu nekk fokki wax boobu yem foofu benn wayen ko dima leen jiitaléef na ak lu cosaan la soo ci bëri xalameet ala jëlu dig ba maanaam su fekkee tey da ngaa def cosaan mu la sement def na xalam dig ba su fekkee dig ba kat la ba mu ne di ko faa tëgg kon mu dagan da nga de daanaka loolu mooy boo salam le woon weñ bi ñuul te fekk diggante bi ngay topp jaas yi mu ne di ko fay tëgg mu dagan waaye wayen aada dama ne woon laa yow di mënta dellu ay na sanat bi di ak jàppali di def wayen aada ndem mën naa dellu soo ci bëri xalameet da nga de dig ba fii maa ci xalam la cosaan di topp lu ñu jëf ak xalam la ñu jëf di topp cosaan su fekkee dig ba kat la ba cosaan la ma ne di ko faa tëgg wala dig ba xat la bala ñu bala ñu jëfoon mëneesu ko faa sotti ci saanaat la kon ba tey dagal nga ne wa mas noo aani ñaar yu ñu jëf yow daani ñaar ñoo xam ne danañu dellu danañu dellu ñoom ñaar dégg nga de yéen soo def na seet li ñoon faa ci ñoom njëriñ la ni ko dangaa satale dangaa salam le satala di topp kasteer wala nga salam le kasteer di topp satal bu ñu xoolee ne bokku ñuy njëriñ su boobaa dagal la nga ne wa jaasa dagal la xam nga xabul sa fa ci nangu melaw ci salam xam na sama ni jëkk jamono ja maanaam dangaa salam le woon nit di ko topp weer bu weer wi dee la la koy indil ah boobu dafa daal àndee mu andi ko te te melokaan bu ngeen waxante woon la andi dagan na ci xaboon sukati dafa xaddam ci kanam faqat warit nag ah lu gën a rafet wala lu ko gën a ñaaw bu mu andi lu gën a rafet de bu mu andi lu gën a ñaaw ka naka naka dagan na te xam na maal yi naka lay naka la naka ka nangu naka naka nangu ba xam na maal yi dëkk barab ba dagan da ngaa kanam la woon ni ko waaj nang ma ko andil kaw mun na dégg de nga dajeeg moom sa biir kilaan mu jox la ko dagan fil ari si marchandise yëpp la xam moo xam nag marchandise ma danga naan mutlaxan marchandise mu mënti doon dagan na nga ne ma fi daani su dee ñamit dagan na nga nangu ko dëkk barab ba ni ki da ngaa topp ñam in àlla ndem ay na jig ba waaye nag in la ñet sax ndem di jëy kiraan ab tool bu fekkee tey da nga salam lay waaji di ko topp ñam dem dajeeg moom pourul fa ngeen fa ngeen waxante woon mu jox la ko dagan na waaye bu ko ni dag may jox tont bi de nga ne wala si ma war na nangu ga nag ba dahuma gannaaw dig ba ak barab ba dig ba jot na barab ba jot na mu andil la ko koo xam nag ba ca barab kooku war na nga nangu tool lee dagan na waaye lii moom war na mu ne ko xaadim da nga naan mu dële na la les bi maanaam war nga ne ko xaadim nit ki nangu xaadim da nga de maanaam imaam su fekkee muslimu ilayhi ñëw na andi la nga ko salamle woon fekku la fa bu ko xaadim nangoo kenn xaaba nem fad na mu ngoog muslim yow da ngaa salamle woon nit jox ko mu dikk fekku la fa mu jox ko xaadim jeex na wa jaasa dagan na ajoodu lu gën a rafet ku ardaw ak lu gën a ñaaw si dig ba jotee dagan na nga salamle woon nit su ko topp tepp mu indi la tam mu gën a rafet moomu dig ba jot na loolu rafetu fayin la wa ak daw ak lu gën a ñaaw rafetu fayowin la la akal ko mënu gën a néew ila am nit yi ndere wëlis camam waaye daganul lu gën a néew la maanaam tey ñeki tey da nga ko ne woon ah na nga ma andil fukk mu dem fukk ak benn mu dem andil la fukk ah kooku nag daganul ila am nit yi ndere wëlis ndere kemba nag su fekkee nag dalaa andil lu day ne kem ba nga ko waxoon kat yem te kon dina dagan sëriñ bi nee na wayëb ri u te mu dañal ko li maa ci lépp loo xam ne saada ëpp la wala daqiqun daganul jàpp alxamin wala xamu da ngaa salam lewoon di topp xamu wala bëti ko jàpp ndi kooku daganul waa su ak sosaan ba da ngaa salam lewoon topp sunguf wala bëti ko jàpp xamu kooku moom itam daganul dégg nga de mu ne woo bi xëy di jëm si dégg nga de nga ne wa dagan na fayu muslimun fihima bi xëy di jëm si tegul xeet la in jaasa ndeen dagan na bay hoo jaay muslimun fihima dégg nga de xam la xam di dëkk nga ñu tënke saxa da da ngaa salam le saw ba ji def malaan sol ba ci topp xayawaan dagan na nga jàpp darahima ay tëram ndax dagan na jaay xayawaan jënd darahim boo bay hoo te dagan na jaay da nga naan lu ñu jàpp la bil muslimi fii jënd muslimu fii ma mu naa gis fan ci teewoo ñu tënke dafa da ngaa salam la darahima ji def dara moom nga def rasumaal wal batiku di topp saw bu ji def malaan jàpp ci si jiitigi sa tala kooku dagan na ndax dagan na jaay saw bu ji def malaan jënd sist kooku dagan na nee na waan islama ak bu dagan na salam le fii ca lu ñu jàpp la rastumaal yi mu nekk bopp alal la nga jàpp ne mën a doon rastumaal yi dégg nga ñu tënke daha sa da ngaa salam le darahima ji tiri ay dërëm di topp xayawaan ji tiri nundat wal batiku dàpp saw bu ji def malaan dégg nga ndax daganoon na tey nga def saw bu malaan muy rastumaal nga topp xayawaan nundat kon dagan na waaye laa tax amee xuma ñam wala min ak yàq di xayawaan yi jëne nu dëkk kooku dëggalu bu ma ne laa taxaani dama xuma ñam kon ñu tënke dafa ko da ngaa salam le dara yi ma di topp foon wala bëti ko bëgg a jàpp xam-xam kooku dëggalu ñam ak yàq di xayawaan yi jëne nu dëkk dëggalul moom itam ñu tënke saxala da ngaa salam le saw bu jëf malaan di topp xayawaan bëgg a jàpp lax mu jisiri yàq kooku moom itam dëggalul mu ni wasaadul ak jàpp wurut wa rastumaali tamit moom rastumaal ba wari fun xaalis la dégg nga de ñu sañ ko da sa sa kooku moom itam daganul ni ko da ngaa fanam le dara ima jiitiri ay dërëm di topp saw bu jiitiri mu laal wala bëtiku bëgg a jàpp saabu wurus daganul waa soo ak safaan ba da ngaa fanam le saabu wurus wala bëtiku di topp saw bu ji def malaan bëgg a jàpp dara ima kooku daganul moom lañ sañ ko sa sa da da ngaa fanam le sa saxabu wurus di topp saw bu jiitiri malaan wala bëtiku bëgg a jàpp dara ima ay dërëm kooku moom itam daganul dégg nga de kon nag ah sëriñ bi nee na waja tënk yooyu tënk bu mujj tënk yu mujj maanaam ñetti tënk yu mujj yi ñooy mustiraatu ñetti tënk yu jëkk yi nga ne wa jaasa dagan na ah ba di ajal yi gannaaw jib ba da ngaa salam le di topp malaan waaji ràbb ko ba jib ba jot dagan na siyaadatu dolli nga dolli rastumaal ba léegi si da ngën a léegi si doo ngën a dolli malaan ma toolan ci gudd bu ko defee mu gën koo guddal kooku dagan na waaye laxar doo ko ma gën jaa yaat ci kanam ak wala gën jaa fatt ndax su boobaa fas ku day nin si day nin la su ko bëggee gën a yaatal loolu mu gën koo fattal day mel ne da ngaa siri malaan mi jëkk ma di ko topp leneen dana ca kanam tuuti nee na ak ka xabli ka xabla hoo kan naka nga dolli ko xabla hoo jëkk dig ba dagan na in ajana ndeem gaawe na daraahi moo dolan dërëmi ndolan fiya waaye laaxara doo ko ma gën jaayaatu awa safa wala gën jaapat kooku moom itam daganul waxat in dagan na dolli fokk ba jël ci joo loo xam dana ko ci rabb ni ki tey masalan da nga koo rabb la woon malaan wala bëtiku nga dolli ko fokk pour mu gën mu gën ko caa yokk dana dagan waaye na ko dolli ca guddaay ba laaxara doo ko ma gën jaayaatu awa safa wala gën jaapat me ne walaaye sama du war ko nag dafoo ak jañam moom muslimu fiihima bi xëyri maalitul barabam da ngaa salam la waa ji di ko topp ñam dajeeg moom ca marché ba masalan daal ñam wu ñuy jënd ni ki da nga da nga jënd kat ca luuma ya nga daje fa ak moom warul mu jox la ko foofu bu ko neexee mën la damay xaar ba fan fan waxante woon mooy indi la ko wala xafa doon way foon na am lu ak yéen ndax boobu yëpp xat lun sëriñ bi nee na gis na dagan xarnu maa leb lépp leb lépp loo xam ne gis na mu def na salam ne fii di ko topp faqat walit lu daganul salam di ko topp suuf daganul salam di ko topp daganul leb kër daganul salam di ko topp daganul leb tool daganul salam di ko topp moo tax daganul leb waaye lépp loo xam ne dagan na salam di ko topp dagan na nga leb ko leb nag mooy jël dara delloo ci waat jëmm ji bilaa jaarit ngir jëréer tey lu boo xam ne dana dagan lil mu sori di ñaan aji sàkkoo jaa leb da ngaa bëgg a leb waaji jaam bu jigéen kooku leb fay la dagan ko donte da ngay jëndaat jëbéer bi mel ne moom andil ko tere nañ loolu bu tàbbee wàcc waru dog delloo na jëbéer ba alaante fasandre boo faat na indoo ci moom di mu fayut inte la daan faatal njaay te mooy bu ñee la daan faatal njaay moo ko faatal te mooy fat ko marché ah kon nag farxi ma indal ci xëy na jëbéer baay maanaam nga dal nga def ko xëy na jëbéer mu mu jeex mu nekk faat ne ko woon ci njaay mu yàqu ma ne waxal ma alam na hadiyatoo may lan teeg ku la lebal maanaam nit ki di la lebal nga yëkkati di ko may ngir day aram ndax boobu waa day daal nekk salafu bi fiyaa bi ni ki waa ji ñëw nga rek mu lebal la 500 mille nga daal di yëkkati 50 mille ni ko am ma may la ko ah boobaa léegi bis boo ko fayee 500 mille 50 mille ya nga ko mayoon day daal di nekk salafu bi fiyaa bi in lam yataxaddam dem jiituwul nit lu ca may leen te ga nag su fekkee daa ngeen may leen te ah kooku nag amaana ñu seet ba xam aw yo bis war a sotu moo ji bur luy waral may leen te ni ki waa ji dalaa may jabar lebaloon la téeméeri junni ah kon su boobaa boo ci yëkkatee fukki junni may ko it ñu ne xamaa amaana mayen jabar mee tax karab bi daari karab bi xilaat nit ki borom xalaat alal na ngay maa dem teg moom wa aana li aana bi araam na ngay may leen teg moom walaw bari suxlil maa donte gannaaw bañ soxlaale alal jala ba noppi araam na ngeen di may leen te rabbu maalak borom xaanil alal ak jël ci wax dëgg na loolu wa ci jaayin borom daraja araam na ngay may leen teg moom ndax loolu moom itam dangaa fekk ku am daraja nga xam ne maanaam kuy wut soxla ci moom ngay dem dem di ko may leen teg yu demee noonu day araam wal xaadi ak xaadi araam na may leen teg moom ndax neexal wa mu bàyyeetu araam na jaayante xaadi musaamaatin ci njëgal lu war a jar fukk nga di ko jaayee juróom ak yu demee noonu yooyu yëpp day wane ni da nga koo bëgg a jege ba boo defee mbir du la dootu la atte atte bu jaar yoon aw jarul man faatin wala luy bijji njëriñ lépp buy bijji njëriñ daganul ko sàpp si xasilin ni ki sàpp fee yàpp wu xëbb ci saalim yàpp wu mucc da nga am yàpp woo xam ne daanaka yàqu la nga ni kaay ma lebal la ko boo reyee sa gàtt bi nga fay ma yàpp wu dara jotul loolu daganul sëriñ bi nee na wa daqiqin ak faye sunguf sàpp faye sunguf bi bala din cim réew maanaam tey da ngaa am si sunguf fii ni kaay ma jox la ko nga dem faye ji ma ko ca Louga kooku dañ koy tere aw kastin wala camp dégg nga de di bala din cim réew ni ki kaay ma lebal la sama camp bii waaye yaa ngi ma koy faye ji Ndakaaru kooku moom itam dañ koy tere ndax loolu lépp yanu bi ngay daw aw ko ci furne wala mu sàpp faye mburum furne di milatin ci mburum gël li ko waaji da nga ko ni kaay ma lebal la mburum furne mburum gël nag moo gën a baax te mburum mburum gël nga may faye kooku ba tey dagal ndax loolu lépp lépp di njëriñ la aw xëy ni wala jëmm xasuma joo xam ne màgg na am lu waa ab yanoom nga sàpp ne ko kaay ma lebal la ko ni ki waa ji am nga fii tonu pepp ah bëgg ko bëgg ku la ko yóbbu ndakaaru amoo ko nga ni benn waaye kaay ma lebal la ko nga fayee ma ko ndakaaru loolu dañ koy tere te sab ta jëte ni ki wasoo wasoo nag daanan ko siree waa ji dafa am fii ceebam ci kaw la kenn am ceeb ndakaaru léegi nga ni ko kaay jël sama ceebu Kawlax bi man mi dëkk ndakaar ma jël sa ceebu ndakaaru bi kooku daganul moom itam waaye nag boo demee ci fra yi ñoom siree wuñ ko noonu dafa mel ne daal sab ta jëti ñoom ni ñu ko siree mooy yow da ngaa am fii ñam woo xam ne bari na ñu ci tonu ceeb ah léegi benn waay nekk ndakaaru nga ni ko kaay ma lebal la ko fii da nga faye ma ko ndakaaru dégg nga de ah léegi nag bëgg a daw transport bi loolu nag la ñuy bañ ilaahan waaye nag waxin wu njëkk bi nga xam ne kenn ku ne da ngay jox sa morom nga xam ne da ngay bindal waa ji boŋ mu jël ceeb ba nga am ca ndakaaru mu bindal la boŋ nga jël ceebam bi mu am Kaolack ñu bari noonu lañ ko firee loolu moo doon suñu firi bu jëkk waaye nag borom sara yi moom dañoo wax ni mooy la ci benn wet lay féete yow rek yaa am sa ñam mu diis nga bëgg koo lebal fii nit dem ba sa dëkk mu fay la ko ilaa ni xuman rek boobu masalan ak kaw ragal ga bu fekkee nag tey yow mi am ñam fii benn waaye am ñam ndakaaru su ngeen weccoo ah ragal bi kenn ku ne bu sëfee sax ñam def na ko nangu ci yoon wi su boobaa nag kon dagal na ba xëy nin ak jëmm kuréel yoo xam ne si def na iqaamatoo ak saxam jëmm joo xam ne dañoo sib ak saxam ni ki yàpp woo ragal mu yàqu nga ne naa ko lebal nit pour mu fay la weneen yàpp bu baax ba tey wax naa ni kooku dagal na naka noonu suuna soo ragal ne bu fi nawet ay yàqu nga ne waa ji kaay ma lebal la ko bu loolee nga fay ma suuna su bees loolu it dagal na ci laan yàqu man boo taxaw na dëllum tegtal alaa naqas na ko jublu naful muxtari di mooy jublu ga naful muxtari di mooy njëriñal aji leble ja njëriñal aji leb aji sàkku ja leb faqat walif aji leble ja si jami ci mboolem masala yi gis nga mboolem masala yi yëpp bu fekkee ni kii leb rek moo jëriñu waaye kii leble moom du jëriñu yoon day daal di yéwénal ni kii leb moo bëgg njëriñ kon su boobaa dimbali mbokkum jurit day daal di nekk day dagal kafe mu di leen réer ci dagal ji mu ni ko da nga de kafa daani ni ki dooñ mustasidin wu di aji góobu xafat woo xam ne wayef na mënatu oo coonoom ba alayhi sa aji moom ja yow da ngaa am ah maanaam genn wàllu hectare suuna te yow góob ko méttiwul ci yow benn waaye ne man damaa soxla suuna nga ne ko ah kaay ma jox la ko nga góob ko bojj ko jëri nu mu toll boo góobee si suuna nga fay ma ah kon su boobaa dëgg la coono bi nga ci waroon daj yow ki fa moom méttiwul moo tax ñu jéggale la waa ji lekk ko moom sonn ci bu noppee fay la lu day noonu yax su duhoo dana ko góob moom may lekk wala bi su mu bojj ko wala yarudu te mu delloo màcc na too na ba xam nga kon mel ne na dolli na la coono bi nga xam ne bi mu ko lebee bojj bi ak ngóob mi coono la waaye nag comme mooy jëriñu yoon may na nga lebal ko hectare bi mu góob ko bojj ko bu góobee suunaam bojj fay la lu day na la mu leboon nga ne wamu li ka moomaleef na aji leb la mu leb wala mi wala wala sam baru radduhoo ak delloom dégg nga de maanaam delloo jëmm la nga leb warul ilaa bi sattin rek sax su ma la nee nag li ma li nga leboon nga indiwaat jëmm ju mel noonu ah kon nag su boobaa ñu jëfandikoo sax aw aada wala ñu aadoo fa loolu kon it bu dee aada la te mooy delloo si jëmm ja na nga ko delloo si mu ne caax mu delloo ne rek ñàkk war gi mu ne caax fii nag ak jàpp leb ba di kay lu ñu fayala di kay di maalitu lu ñu barab ba maanaam su ma la lebalee xaalis lu daje feneen foo xam ne bokkul ak fa ma la ko lebalee woon ah nga yor xaalis ba jàpp nga waruma bu ma neexee ma ne la ah xaaral ban ba nga ñibbi teelal ay na nga rek tee bu dee tee nag moom dagan na maanaam kon da ngay yem ka ak fii di xëy di maali ci lu dul kee maanaam lu mel ne lu diis aju demee noonu waaye bu dee xaalis ak wurus nga xam ne diisul foo daje ka la ko lebal ka nga ko lebaloon mën nga ko ko jox mën na ca bu war na ma noonu ndax boobu yëpp boo dikk ci lankoo lankoo mooy ma ameel la wurus fukki dinaar nga ameel ma wurus fukki dinaar moo xam danoo jaayante waxtu wa jot mu rakkati ko kenn ku ne féeteeg sa bopp nga ni fas lul te joosi mën a dagal almuqaasatu lankoo si day nay ay nit ñaari bori kee mos ma xam moo xam dañoo bokk tukkee ci njaay wala ñu bokk tukkee ci lekk wala benn ba tukkee ci njaay benn ba tukkee ci lekk waaye ini taxa daan ren benn na ñaari bor ya xadaran ci kenn wa sifatan ak ci melo xalaa moo xam ay nañu ñoom ñaar aw ahaduma wala kenn ci ñoom ñaar ay dégg nga de am laa wala kenn ayu sayit maanaam kenn la ci diggam jotagul kon it du tee dagal wayni xalafaane wut na ñoom ñaar ci façon ci melo maa ci àddina wi ànd ak bennoo xeet ni ki da nga ma ameel fukki dinaar yi Muhammad yi ma ameel la fukki dinaar yi ci biir kon ñoo bennoo xeet waaye wutu nañu melo fakkasaali ci ni ko woon ñaari bor yu dëppoo ci xeet ak kenn ak melo la ci kanam dafa xadam ci dégg nga de fakkasaali ni ko woon ñaari bor yu tee yu dëppoo ci xeet ak kenn ak melo la dagal nañu lankoo dégg nga de ay xilaaf yi wala wuuteem ni ki tey da nga ma ameel dinaar yi Muhammad yi léegi ma ameel la dërëmi yasidiya waaw kay kon it fekk daal ni ko woon ci ñaari bori teer yoo xam ne ñoo dëppoo ci xeet ak kenn ak melo dagal nañu lànkoo si digg ba joxe in xalaa ndem ay nañ ñoom ñaar wa ilaa ndem xar ñu ñoom ñaar falaa du dagal maanaam na seen digg jot bu seen digg jotul du dagal man a kaari xalafaani ki ne wut nañ seen tan ci mandaxe min bay hin ñu tukkee ci njaay nga xam ne da nga maa jaay ma ameel la bor ma itam ma jaay la nga ameel ma bor ko ñu tolloo dégg nga de su boobaa dagal nañu lànkoo wala wa taxaamaani ñaari ñam su ko defee dégg nga de waaye nag nañu ay ñoom ñaar ñett wa taamaani ñaari ñam min xadir mu tukkee ci lepp nga ni da nga ma ameel boru ñam ma ameel la boru ñam te kaa ni ko woon ci ñaari bori teelu dëppoo ci xeet ak kanam melo dégg nga de soo xamee ne ay nañu ñoom ñaar dagal na lanko boo mu ne te def na leen ñoom ñaar nag ngay wax min bayin mu tukkee ci njaay su fekkee ñaari bori ñam yu tukkee ci njaay la daganul lankoo ga wala mu tafikeen doon ñaari way dëppoo lañ ci xeet ak kenn ak melo nga ne wa min bayin bu benn benn ba tukkee ci njaay waxarin ba tukkee ci lepp ni ki tey dama laa lebal dama laa jaay bari gëpp suuna ci ñeenti junni nga jaay dégg nga de nga leb ma bari ko ceeb dégg nga de man dama laa jaay nga ameel ma may itam ma leb la bari ko ceeb kon loolu ngay wax kon léegi maa ngi lay ameel ceeb bu ma la war a fay nga ameel ma suuna su tukkee ci njaay te joosaani danañu dagan ñoom ñaar ni tafaxaan dem dëppoo nañu ñoom ñaar waxalaate ñu ay su fekkee ñaari boor yo dëppoo nañu ñaari ñam ya ni ki kon suuna ak suuna nga koy misaal jaay naa la bari ko suuna ñeenti junni nga lebal ma bari ko suuna may itam ma ameel la ko kon ñaari bool yoo dëppoo ci xeet ak kenn melo dagal nañu lankoo bu dig ba jotee wa alaatuñu ay ñoom ñaar waaye laa inam yëfi laa waxuma dem ayub bu ñu ayub di dagal aw aaduma wala kenn ñoom ñaar ayub di dagal mu ne wa ta jëf dana dagan lankoo si arda nit ñaari bari marchandise wat la xam moo xam dégg nga de dañoo bokk dëppoo ci njaay dañoo bokk tukkee ci njaay wala ñu bokk tukkee ci lekk wala ba tukkee ci njaay wala benn ba tukkee ci njaay ba def tukkee ci lekk dina tax daal leen benn ñoom ñaar jëntoon ci xeet wa si fatal ak ci melo nga xam ne tey ñaari bori marchandise ñoo bokk xeet ni ki da nga ma ameel piis ma ameel la piis wala nga ameel ma jàmm ma ameel la jàmm te ñu bokk kon su boobaa dagal nañu lànk ko kaani xalafa ni ki ne wut nañu jëm ci xeet ni ki da nga maa ameel jàmm ameel law fas wa waaye wa tafaxaa ñu dëppoo ajaleen ci dig te ñoo tolloo ci maanaam xayma dagal nañu lànk ko waaye ni xalafa ne wut nañu ñoom ñaar ajaleen ci dig mu nekk rek la ko la su nem yexi laa dem ay ñoom ñaar aw ahaduma wala kenn ñoom ñaar ay mooy seen dig jox waaye taa daan leen benn jëm ci xeet ni ki tey da nga maa ameel piis ma ameel la piis wa sifatu melo wayit mu tafaxan di dëppoo piisu mbasin nga ma ameel ma ameel la piisu mbasin aw muxtalifatun wala melo wa sax wuute na da nga maa ameel masin bu xonq ma ameel la bu weex jaasat dagal na lankoo ga ine tafaxan dem dëppoon al ajulu digg wa ilaa dem dëppoon ci digg falaa du dagan mutlaqan moo xam dañoo bokk tukkee ci njaay wala ñu bokk tukkee ci leb wala benn ba tukkee ci njaay benn ba tukkee ci leb baabul arraxanu tayle sama borom tudd na ko fari aanun maqbudatu bas lu man mooy yulli koo xam ne loo ñal na ko albayhu njaay mu yulli maa loo xam ne yu baaw na la dagan dégg nga de maanaam mu joxe ko aw xararan wala xarar dagan na tayle xarar maanaam nit ki daal boo déggee tayle mooy garanti nga leb nit dara mën nga andi loo fi garanti dagal na nag nga jël loo xam ne xaral la tayle ko masalan waa ji lebal na la xaalis nga tayle ko jàmbu daw wala nga tayle ko jën wu ne ci ndox mee ju demee noonu dagal wala su doon sa tefoon na fekk di ca pas pas dégg nga de wasiqatan nag dama ni bés lu mën mooy julli koo xam ne loo ñal na ko albayhu njaay mu yu dégg nga de mu yulli maa loo xam ne yu baaw def na ko daganal ak jaayam muy wasiqatan muy ndëgër laay bi akkin ci ak nga xam ne moom ak joo ko amee loola mooy ndëgër laay ba ko wàlli nekk kilifa moom itam da nga naan dagal na mu tayle maanaam alali ko ñu ko dénk waaw kilifa gi nga xam ne moom la ñu dénk jirim bi dagal na mu tayle alali jirim bi waaw waaw wa mu kaata bin mu kaata maanaam jaam boo xam ne da nga naan day jotoo sañ naa tayle leen ni alalam wa ma soon jaam bu ñu digal yaxam sañ naa tayle waa da seen jaam bu daw moom itam wér na tayle maanaam jaam bu daw ma les na koo tayle xarar la waaye wér na dégg nga de ba kitaabatin bi jigu njotoo dégg nga de mooy alal gi nga xam ni jaan bi di la ko ameel di la ko jox kooku it maanaam dagan na ñu tay la ko su ko defee maanaam sango mu kaakat mën naa tayle biddiwu njotoo ba maanaam ci bor yoo xam ne da koo ameel nit loolu ngay wax moo tax ba kitaab bi ak biddiwu njotoo wér na tayle ni ki sa jaam buy jotoo yow biddiw ba mu lay jox dagan na nga tayle ko koo ameel ba wax suufee def na matlu nag bu boobaa nen xaa ci biddiw ah waaw boo fekkee fayoo bor ba léegi ci biddiw ba la ñuy fayu nee na aw raqabati wala baatu jàmba dina aji si dem jàmba lott la su fekkee fa yow bor ba bu jàmba lottee ñu fay ca baatu jàmba waxit ma su mu dabar kay may liggéey jàmb ñu goreel wér na tay la maanaam jaam bu ñu gannaawal xidmatu mu dabari liggéey jaam bu ñu gannaawal yooyu tay la wa in ruqa doonte jaam da nga de in wa in ruqa ndeem jaamaleef na gisul ab xaaj fa def na fayu da nga de bor ba mi sa xaaj su fekkee basa nga ba dee jaam ba lépp góréwul da nga de maanaam la cay jaam loola la ñuy fayoo bor ba su boobaa waaye laa raqabati waxuma jëmmi baat ba moom gisu ko fayoo Eh, wala dagalul tay la laa dagalul tay la raqabati baatu mu dabar baatu mu dabar su boobum dagalul tay mu ne su boobaa bu tàbbee wàcc dangaa dem tay le mu dabar waaye jàmm yàlla ndax yéen taxul doo taxul xidmat yi jëm ca liggéey ba ak ñàkk daal taxul jëm ca liggéey ba xawlaa ni am na ñaari wax ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امه مسلمه لك وارنا مناسكنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربي اني نسبت لك ما في بطني محررا فتقبل مني انك انت السميع العليم وقل ربي اعوذ بك من امساك الشياطين واعوذ بك ربي ان يحضروني sëriñ bi nee na waa jàmm yàlla ci ñoom leen jënd maanaam yoo xam ne laay ko taal bëtul ak daf koo ak jënd te sama ñun nit ndogalam yàlla moo ñu bàyyi ko ak ci jël suñu àdduna aw wala moom koy moo ñu nekk ñun àdduna nga saar ko ak sàcc te laa bëgg nañ ci dana ko sëriñ waa ay bu meññet moo xam ne dégg nga de dañ ko maanaam ay bu meññet la ko sàcc la ko woon ci jëyal maanaam bu meññet mu ñu jaay te bopp garab yi amee ay bit moo jëyal ñoo dañ koy dañu ko tëjee dina ci ñu ak ci mar ne ko dangaa jënd meññet ne yàlla dogal mu mar day taxul mu baax daf na tukki wàññi na seen dëggalu jaay na ko yàq beneen xale doon te ñëwoon al baqool yi ci borom ren daf na ko tukki jëlee wa safran ak safran dañ na ko jaayee daf na ko tukki jëlee wa ay xaani ak rayan daf na ko tukki jëlee wal xat ak li ñu naan xob daf na ko tukki jëlee wal xat ak li ñu naan xab moom itam xeet la ci xeet yi nga xam ne dañ ko daan jëfandikoo daaba yi di ko lekk mu mel ne mboq daf na ko tukki jëlee wala di wala ci tuuti ak xobi tuut daf na ko tukki jëlee buñ la ko jaayee di ko jëlee sax dañ tukki wa mu xaye duñ ak yi ak li ñu fàttali ci saanam kër jëfandikoo ci karo dégg nga de ak pataas ak pombiteer daf na ko tukki jëlee wala sama war na almustar yi aji jële jële baax yàlla set na buñ la tukki lay jëlee jële ko def fokk nga war koo jël wa in xala jontu ne woon ne ni ko dangaa jënd làkk ñandi bi ci téeméeri junni ba nga ko guddee yàlla dogal sulus ba yàqu kon nag nañ nañ la delloo ci njëg fanweeri junni nga jël juróom-ñaar ci junni waaye fokk da nga jënd la ci def juróom-ñaar ci junni sëriñ bi nee na way siraan leen jëndal ak ñaatan ay xeet te ujjee ajo yàllee ba du aar leen seen ni ko tey dangaa jënd ay xeeti garab tàndarmaa ngi ci biir guyaar ak yeneen i xeet ni ci raisin yenn yoo am jëye mu deet ci tëf jëye jëf bala xat leen jot na xiimatoo xaymay lu ñu jëyaal la xiimatoo xaymay jëye jëf su la sëb jànni su lu si lépp ni ko tàndarma yi rek moo am jëye waaye tàndarma ja mi ngi tolloo ci lu si nañ ñett ko def wuti raisin ja ak xinab ja ak ak ak ak ak ak mawsu ba bu ñu ko seetee tàndarma ja mooy sulu maanaam tàndarma ja daal lañ jëf ko waroon a jar ñetteelu xaaj ba moom la tàndarma ja tolloo te moom la ñu jëyaal kon def na ko ba u jëyee ko jëyaale lu ñu ca lu ñu jëyaal la sulu sulu sulu na fekk tàndarma ja yi maanaam bu ñu nee ñu ngi la jaaye woon làkk bi téeméeri junni na tàndarma ja tolloo fanweeri junni ñett te tàndarma joojee nga xam ne moom la jëyee kàddu it nañu jëyaal sulu maanaam nañ ko jëyaal lu mat sulu sa sulu si màcc la ci sulu si nga xam ne tàndarma ji waree mat fukki daf lu ñu jëyaal ñett ak benn wàll mu ne wa in fanaaha ndeen bàyyi ko lu la samaratu na ñax falaa jaay ak jóg ko ñax misaala kal xas bi ñu ci dëpp aussi buñ la du ci misaal sax ndax nañet mu wow koŋ soo xasee ba jënd jëye ji nga tàbbi yow mi sëñ yaay ñax kal xas bi ñu ci dëpp ko suukar boo ko jëndee al uni bu daa ji ñax bu ko jëyee tàbbi yaay ñax wayaa di ci àddi añal wooju set bu ko jëyee tàbbi yaay ñax maanaam fekk wow koŋ ni ci suuna su wow koŋ nga jënd ko di ko tàbbi ci yaay ñax waxoy na tànneer ne al amin amin suñu mën kaa xaaj ci landalante day na saxuy jami bi dent nandal lépp aw ko fii wala bàyyi lépp dañ ujjee leen jëye sulu sulu la ak lu ko bari tey da ngaa jox làkk bi nit mu di ko nandalante war a am ci nañ ñett ni ab xaaj léegi yàlla dogal am ci bu jëyee tàbbi ah bu tee nag day nandal lépp wala mu bàyyi lépp lu nga def bu fekkee la ko li ko jëyee tàbbi ba sulu fàtte wax boobu yëpp nga ne ba mu fekk aji sa tee na ma loolu nag bu ñu xam ñu samarin ci nañ su jaaw moo xam ne def na ko jëyaal bi maa kenn kenn nga xam ne yow dama sippeek na ko yadda ulay sippi ko am na sëriñ aji jëli jëf di xabiri ko kenn tey da nga ne woon maa ngi lay jaay tool waaye lépp lu mu ma toolu tàndarma ji maanaam jaayal yow ma sulus yàlla dogal jëyee sàdd ba lañ doon séeni te nañet ma mucc bu seeyee la fa def sulus ba rek moom moom moom ngay jël yow mi nga xam ne yaa doon bàyyi ko bu ko defee ñu ñu ñu dinis ba ko rek dégg nga comme ni tool bi war na toll manqué na bu teel la ko def rek nga jël la nga ko fekkee woon la ko def waa ji jël xet ñun te ñax tarafa nee wutale almuta bàyyi yaa ngi ñaari way jaayante si jël ci keneen ci xeetu njëkk da ngaa jaayante waa ji ba noppi ngeen werante ci xeetu njëkk kenn ka ni ko xaalis moom nga ma waxoon ne moom ngay fay kenn ka ni ko martan bi xalataa ñu ci ñoom ñaar ci kanam ko ci ko ci jël ci jaay la aw na ñu wala ka xeetu la ñu wuute dafa xatal xalataa ñu ci bokk ñoom ñaar boo ko ci ko ci jël la ci da ko ni ah wus nga may fay ci ni ko xaalis kon nag su boobaa xalataa ci ko mais ne war a delloo nag moom bu sëri ximata xëyma ja surfaat maal fàtt ànd ak fàtt la su fekkee traga fàtt na ci loxoom ñu ko joxee xëyma yow ma ba yaa di jaay loolu lañ ko mais ne ma leen dañoo wute ci xaj yi ci tem tey dañoo wute ci tem maanaam dëkk bàyyi dafa ni fukk la mu sëri ni ko juróom ñett la waxoon xalafaa ni ci ñoom ñaar fukk ko ci def fukk ko ci te nag moo ni ci ñu njëgal la ñu wute dégg nga de léegi tey kenn ko defoon ab dàq nga ma jaay kenn ko ne ko nag xalafaa ni ci ñoom ñaar fukk ko ci def aw xatil ajo wala seen dig tey daf ko ni weer kenn ko ñaari weer xalafaa ni ci ñoom ñaar fukk ko ci def aw rax nin wala tay la ci dafa ne da ngaa sàkkoon indi tay la kenn ko waxoo ma ko woon dégg nga de xalafaa ni ci ñoom ñaar fukk ko ci def aw xam nin wala aju dàq bàyyi da ko ne woon dama ne noonu nga andi ko la dàgg ni sëriñ ko waxoo ma ko woon xalafaa ni juróom ñaar fukk ak juróom ci ma dem àttat na fii ci siriga saayir ci saayir da nga de wa baatin ak ci baatin boo déggee siriga ji saayir mooy siriga ci diggante nit ñi wa baatin siriga ci seen diggante yàlla mu dina ne leen ci maanaam alafaa ci sax naka laa ci sax mooy kat naa ni maanaam nit ñi gëm ñoom ñaar daanaka naka laa jàngoon bu ñu yéegee ñoom ñaar ñu siriga da nga de njaay wa su dika dëgg lépp la nag mu sëriñ aji jënd i dangaa koo xam ne wooye ne al asbaalu jaar ñu werante nga ji nangam la bàyyi ini ko nangam la sama sëriñ li mu wooye jaar na moom la ñuy dëgg waaye wax na ko dana jum nag ko bëggal boo dee une part leen tracé faat na ci loxo te ñu bokk na ci faat nag te jaa ini sama ni réeroo njëkk su fekkoon ñoom ñaar bàyyi ak mustari ñoom ñëpp dañoo wat nga xamatuñu njëkk kon nag la mustari jum ñu bëggal ko waaye min waaye su gëpp dafa tukkee ci aju doon dégg nga de maanaam nga xam ne ci kuy jaay ci naati dégg nga de moom daf koo donnoon loolu indi waan mais noo ba daa jëkk ne al bàyyi aju jaay ga ñu waran kee ci njëkk bàyyi xoo jëkk jum waala ko dana jum nañu dégg nga de moom bàyyi dana jëm maanaam fépp ci liñ jublu ci ñoom lay wax wala ko dana jëm ci liñ la jublu ala na tuuba waa kasni ci dàq woote xuloo waaleen maa ko ci daaw ànd ak digal wax ñoom ñaar ñëpp kenn ku ci koy jëm da nga dàq sa sa waxi morom ànd ak digal say wax loolu lay wax way ñëpp dana faane wut ñoom ñaar maanaam bàyyi u day jëm wallahi li ma wax mooy dëgg te li ma sëriñ wax la ma sëriñ day jëm wallahi dëgg li ma wax mooy dëgg te li bàyyi wax loolu mooy ndax julit moom boo ko boolee yàlla rek wax ndax loolu mooy moom la koy wax léegi dañu ko la faane wut ñoom ñaar ja bàyyi ñu sunu sunu taay la jëm ci bàyyi ci jubbe da ngaa lebal waa ji silage weer wi dee nga ñëw ni ko fay na mu ne boot weer wala ca kanam la waxante woon de kon faw ñu wax li mun sëri taxat yi ñoo la aju yedd jeexu jeex te nag kan weer wala ca kanam la ñu dugg mu ne ma dem dañoo wutati kat bi kanam ci ngeen jëgg jox na ma silage jox naa la waa ji jaay na la silage jox ñu la joxe góoma njëgg nga ne ko jox naa la ay silage wala silage wala nga ne ko jox naa la njëgg waaye joxe góoma silage sëriñ bi nee na ñoom ñaar lu ci mën a am day fal asul ci taal ba xaw maa mooy jëf ci njëkk ak silaafa ca loxoy kañ ko woon maanaam daal su mustari ne yow day joxe góoma silaat te jox naa la njëkk wala bàyyi une yow day jox naa la njëkk te joxe góoma silaat lay cosaan mooy silaat ay kon nag kenn ku nekk la nga maanaam li ci daan mooy dëggal leen ci woote kon nag mustari ñu ni ko gaaw a joxe silaat bàyyi nit ñu ni ko gaaw a joxe bi mu ne faaw ba ne ilaaru kum dara baax bu dee baax nag loola mooy ca laa nit ñi ci yàq ah nga xam ñaare da ngay fay ñu door laa teetee soo teetee ba noppi ñun la joxe woo yow la ñuy dëggal nag tey nga ni joxe naa aw pax lim wala boroomi reer baana boo xam ne fekk na mu sëriñ bi ak moom ba sori bàyyi u daf ni ko fëyagoom mu ne ko ah kay fay naa te la fay aada mooy gaaw fay kon moom la ñuy dëggal ko wala ko doon ko bari woon wa ilaa leen nga xam ne nag ah aada woowuñ fa da maanaam loolu amu fa aad kon nag kon falaa bi ci ko dëggal de bu ne da andee woone dafoo ak gënam ba ñu ak ci ginnaaw jàpp ko su fekkee loolu nekkul loo xam ne lu ñu baaxoo gaaw fay kon nag su boobaa kenn du dëggal ñu sëriñ da nga def te kon bu ne joxe naa ko bari ak bu ne daa def koo bari ak wa ilaa ngeen dafa ne dama ko koo jox dëkk jax dëkk bu may teeteel laa ko fay te loolu ba fa wuñ faa joxe njëkk lool faa jàmm yàlla ndax ñu ko dul def na nangu waxam aw wala moom tey def na nangu sax mu sëriñ si maa ci loo xam ne oo moom taam lay baax dégg nga de bu fekkee loolaa fay baax dina dëggal waxam aw laa wala moom tey desul dëggal waxam ak wàllu am na ci ñetti wax mu ne wa isaad mu sëriñ tey rek aji jënd bi saman ci nëbu njëgg mu sëriñ aji atte la nga xam di mus mënu ci nëbu ñu njëgal la mu sëriñ dafa ni suñ day jaay na ma nangam ba seede leen ni dégg nga de jox naa ko njëg loolu de àtt na ne yow jox na la silaas kon nag ba tax na boo nee ah joxaguma silaasa nag wa ala ko bi nga bàyyi aju jaayam ay baadara ngeen ci gaawe ne joxaguma silaas loolu nag ay aaju bàyyi na ko teer nag bàyyi ba kat bi ñu na bu ñu jëgg soo jegee ni jaay naa di silaasa ba jox na ma njëgg loolu àtt na ni jox nga ko silaasa te kon bu mu sëri ne ah joxaguma silaasa kooku moom itam mu sëri dina ji mene ma leen dañoo wuti si bàtt ci njaayum bàtt nit dafa ni jaay nga ma silaasa waaye njaayum bàtt la kenn ko njaayum xeer mu dee aji waaye njaayam bàkk la ñuy dëggal ka mu dee seet nit aji waaye ju ñëw ba keneen su waaye yàq ka waaye wér la ñuy dëggal bu leen wax ne dinañu alkitaab yàq sa réew mi waaye bu doon njaay mi yàqoo ko nag nag ko waaye yàq la ñuy dëggal mu ne waa jaam yàlla ba nga déggee aji waaye njaay mi dégg nga def wér la ñuy dëggal xanaa ilaa ñu xalifa nga wut na sàmm lu njëkk bii maa ci wér yàq kenn ko dafa la njëkk sàngar la kenn ko la njëkk borom kon nag su boobaa ka def day mel ne sa xadi na ko wuti ci càmpa day mel ne ñaar ñoo xam ne dañoo wuti ci càmpa ci ko alafa mu fi taxaa naka laa ko xaaw ko bi ala naati naka la aduma xarit yi am nañ ci bay day ñu ne wal muslim ilay muslim ilay da ngay ko faram ne jox ko xaalis di ko topp ay sila maa ko waajal ay ni ànd ak faatu seet di samani jamono sëñ bi daal di yàgg nga xam ne léegi xaalis ba nga ko joxoon faatu na te yàggal ay silatu wala silaatu faatu kal muslim nag ak jël muslim la ca buntu ca buntu njaay te kon koy ko ba jot na kaw loo waxam ina jaay leen wooye na muslim jaab su fekkee moom mi nga faram ne woon moo ne nangam nga ma joxoon di ma topp nangam kon li mu wooyee jaabu moom la ñuy dëggal yow ma wax leneen yow yow li ko joxoon waaye ni daa yaa ndew waaye nañu ñoom ñaar maa loo xam ne laa si ñuy jaabu tey fii muslim yow da ngaa salami la woon nit jox ko téeméeri junni ne ko na nga ma andil ay xar mu andil la ñaar ci xar ngeen dem ba mu yàgg nga ne ko desoon na fanweeri xar la woon mu ne ñaar fukki la te xar yi faat na ci sa loxo yéen ñaar ñëpp li ngeen wooyee jaaduwul fa salamu ñu dem ci salam wasatul di digg ñu ne waaw ku joxe téeméeri junni ñaar xar la ci war a mën a am bu ñu la ngam ci ñu joxee ni ci bopp nga ne ko dem dañoo wuute ci maw di ci barabu ba ñu jëppalee salam maanaam tey yow marab bi nga xam ne ci la ñuy jëppalee salam te la ñu wuute su bu ko dëgg nekk nga dina maw bi ak yi aju waa ji barab kon fii lañ fase woon salam bi nga dem dem andi ko nga teelaa koy teg man fii nga koy indi kon suñu ko fase woon la ñu def way laa ngeen ko dégg de way laa ngeen kenn ci ñoom ñaar wóoyewul barabu fas-fas ni kii kii dafa woon dëkk bële nga mënoon nag ma ko ko yëpp kii nag ma ko yëpp ci dëkk bii nga ko tey ci dëkk Jurbel ak ci dëkk Nioro ñoo ko sante woon salam su dëkk Nioro ne dama dama ko fi bàyyi ci Nioro te dëkk Jurbel ne ko dañ ma koy yëpp Jurbel ah kon nag fal bàyyi bu aju jaaja la ñuy dëggal su ñu nee aju jaaja la ñuy dëggal nag mooy muslimu ilahi muslimu ilahi la ñuy dëggal moom ma ko ne woon sa Nioro fal ma koy teg jël ci kooku la ñuy dëggal fa lay fa la waay waa Jurbel di jële di jox waaye nag ñu dee jaajul waaye bi kenn ci ñoom ñaar kenn ku ne kon taala fa ñu bi ñoom ñaar ko ci ko ci sama dafa ci ma nak ay jikko sama to xam ne ba dem na dina ci ne su boobaa kon la dañ koy ci ndax mi dafa yaatu ba jaata dagal na buñ ci sàcc ci bertale nekk dana ko ma ko ko yëpp da ko jaata nga di ko faa ci jaww loola wa ila ngam loola amul jaw dañ koy taxawal dafa mat ay mataan bu ñu ci barab la naa ci baabu buñ ci salam la ñu salam la mooy joxe xaalis di tax wala nga joxe xaalis di topp yam wala nga joxe xaalis di topp lu ndëf wala nga joxe lu ndëf di topp lu ndëf yamaa nga mu fàtt faram ne fàtt faram ne xatros maali mooy ñëpp bokk ci dëkk bi lépp aw taata yi woo wala ñeexeen salaata ñëpp xam soo dee jox nit xaalis di ko topp marko yi nga xaalis ba lépp ci biir loxo wala bokk la yëpp ci ñëpp wala di tàpp ngeen tàpp kon pataar yi nit yàq salante di caabi di ci ndolante sa ñooñu di leen teg ci ndolante ñu ndolante la ci teg noonu ba ci biir ñu teg ci benn bëgg yu demee noonu ndax dana yàqu ak ñax daa yàqu tere dina am nañ ci benn benn boo jaay ko dagal na salam ba xiyaar yi ci xiyaar maanaam ngeen waxal sa teg ko ci salam bi waaye nag ngeen xiyaar te rek maal ba wala mu ci ci man ngeen da ngay da ngeen di xiyaar ba xam li ma gën ci jamono ngay xam ni yàq yi def nañ yeexe te rek maal ba ilay jëm te mooy ñett fan maanaam ñett fan ngeen koy fasante war a yeete rek maal ba ba ca booba mën ngeen koy jox xiyaar ku mu neex nga wéer ku mu neex la ba kon lam ngeen fat ngeen teewlu nag waaye su boobaa ku mu teewal nga ne wa dagan na ak salam bi man faatin def rek salam bi man faatin mu aye nañ ci gën la ñu ràññee ñu ci dëkkal ci sama tabax day ñaari weer muy rek maal dagan na wa dagan na salam bi gisaati ci jóor maanaam tey dagan na nga def jóor rek maal salam yow li ngay joxe def ko rek maal nekkul loo xam ne lu ñu wàññi la wala lu ñu fees wér ba taxul ay laan dagal na yeexe lu lépp luy def instrument bi la sàkk ci sax dafay kat yaa dem lu lépp luy instrument dagal na nga yeexe ko yóbbu ñëpp fan ci sax mu ne waa jàmm yàlla sa amu ñëpp wala ab ak màcc bi daal ko dañ koy def lu ci mu def te kon buñ ko defee muy instrument dagal na yeexe lépp ñëpp fan ci sax seen keneen yoon na def na ko mu dellu ci ñam wa wa ubi ci seewale ko mu dellu ci marchandise bi aw wala moom kay yem ak marchandise seen ay dañ koy def lu ci seer te kon dagal lu yeexe lépp ñëpp fan dëgg de saa yi daal am na ci yaay gën fan waru da daloo ko saa yi ci beneen li sa toor daloo salam la ah léegi nga jox ma xaalis boo xam ne day xaalis bu bon wala wuri bu bon dañ koy gën a wut bu ëjë la bàyyi wax dara day ñu gaaw a indi la ko remplacé nee na ko ilaa ngeen xam ne dara wuri ko parce que da yàq ne maa nga xam ne yu xaati bi dina tolloo moom lu yàqu la su fekkee ne xaalis ba la ca yàq ah gaaw a indi lu ko remplacé kon nag la ca yàqu moom la tolloo moom te salam ko yàqu la sëñ bi nee na waaye laaj jënd lépp la du yàqu su fekkee njëg jotee da doon ak junni ñaari téeméer yàqu la tolloo salam te ci ñaari téeméer la laa yàqu la ko def ñu alal na seen ko wax gannaaw nee na wa tasdiq ba tey nga ne dagal na dëggal suñ ci kanam maanaam dagal na dëggal mooy waa ji indi la lu ñuy natt wala lu ñuy peese ne la nangam la nga ne ko wax nga dëgg dagal na te taxaane ni ci ñam moom itam dagal na dëggal ñu ngi koy nititee ci njaay bu fekkee dañ la koo jaay waa ji da laa jaay ñam ñu ne peese naa ko nangam la dagal na nga dëggal waaye nag sama lakk def ñoo la yow aji dëggal bi aw alay ko wala war na la tey di ndolant la mu dellu sa lakk ja wa nax ko ak wàññi ko ba mu dellu sa alay ko su dee ñam bi dalee ni peese naa ko mat na bëri nga dem yóbbu ko peese mu doon bëri gu ba dolli ci ñaari kilo ñaari kilo yaa ko moom su fekkee dafa wàññi ko ñaari kilo ñaari kilo wàññi ko dootoo dolli mu dina fay loolu mooy tey di war na ko jënd almaruf la di lu ñu baaxoo dañ leen xam wa ilaa ndeen nga xam ni ndolan ko ba du maaruf wala wàññi ko ba du maaruf kon nag xalaaru jo odi dellu lakkam yàlla te yow ku ëggaloon mu dellu sa wàññi masalan su fekkee day bëri bi daa wàññi ko juróom-ñaari kilo bëgg kon nag soo dana dellu ci moom ilaa di ko jëkkër nga di ko dëggal nga ne da ngaa dellu ne ko ah manqué na de mu ne la dëggal naa la ñu manqué la kon nag mën na laa fay lam la dëggal maanaam su kilo dana la ko mot ndax kon nee na la dëggal naa la ñu manqué la dana la mot aw day dëgg walay seede lam tubaab yoo xam ne képp ñu ko wuyoo ko yow da nga jëlee ñam ba nga fan ko feesee dana ni bëri jële nga jël saaku baat ànd ak ay seede dem feese ko mu manqué ci kilo kon su dikkee dana la mot waaye wa ala ko dinas na wa laqad aw fa amatal na maalat moom ku ñu salam muslimin ilayhi moom muslim mooy bàyyi ñi moo koy bàyyi maanaam da nga salam ne woon jox di ko topp ñam léegi mu yëg la ñam ba nga gis ni ko ah li ñu andil manqué na de wala ko di yëg la moom muslim muslimu ilayhi moomu la wala bàyyi wu ñu ala ko fa amatal maa la xam ne sama tudd na ko de lama la ni moom moom laa jël moom laa tudd bari jëba mat na ko aw la xat baa wala jaay na alaamaati kenn yoo xam ne sëkk bi njëkk na jii ci moom ilay jël ci moom nga ko da nga ko yónnee woon xaalis ni ko jëndal ma ci nangam loola nag dindi ko loola ni loolee nga xam ne moom la ñu dundoon jëm ci man loola laa jënd dañ tax la ma dem xamal ne mustarihu aji jënd ni ko da nga de maanaam boo déggee mustarihu mooy ci jublu ko di daal dañ tax la ma dem xamal ne ko mustarihu aji jënd ñu kon la ñu dundoon jëm ci man loola laa jënd wa ilaa ndeem nga xam ne nangu wu la jiñ nag ne matal na la mu tuddoon alax nga jiñ yow muslim yow mi nga xam ni yaa ko salam le woon war a jox sa nga gan ni ko la nga mën woon jënd nga ko ñu mat na loola matu sëriñ bi nee na dañ ko sant neen salam le nga àggal naa ko lii xaala sami al dee ko sa loxo ko huwa moom da nga naan min hu musiba muslimun ilayhi waaw yow da waa ji da nga ko jox martali ko sumaam mu wacc ko fi ba mu yàqu mooy ñàkk de dañ tax ma ne ndeem booyal na ko fa te mooy mu bàyyi ko fa jëntuñ ko aw aw dafa wala mu dénk la ko ba mu alku mooy ñàkk ko dana la jox sa sa sa sa lan ko salam le woon awala ay difaay wala mu tegal ko fa ngir appoo jël ni ni ko day loo xam ne day lu ñuy lii nga defoon ci ko def sumaal mu ne la wacc ko fi pour ma lu yëg ah kon nag su boobaa ah bu sànkoo mooy la walañ ko tamit si baa yow muslim suñ lam toppul ngeen taxawul day nekk ay seede bu fekkee nag ay seede taxawul sëf sànku nga ah yow mi nga xam ne yaa ko salam le woon yow yaay nag nga ne wawut nekk sëra lépp ko fa lañ ko wax sëñ bi jikko bi rek laaj ni ko ba nga ko daan ko def sumaal nga dañ ko demal wuti ku la daaral mu jikko wuti mu sànku su amoo ay seede yow yaay yaay yow sama si baa yow muslim nga ne woon na ko di daal di tuddee salam salam bu boobaa nag ñu tuddee salam ndax kon yow ci yow la sànko ñu tudd nga ne waxala ko dina julli wa ilaa ngeen nangu na julli seen tàndoot laa ko morom dégg de bu ko defee nag boo déggee dina ji maanaam kan mooy jul ko maanaam mooy ki nga xam ne mooy muslim yow mi salam le woon ah yow yaay jul ne ko dégg nga day màkkal bi ñu sànku dowul ni dama ko xalak dowul ni dama koo nëpp ngay di wa ilaa ngeen nangu na julli yow mi nga xam ne yow la màkk ñu dal ko sa loxo tamoon nga ngay muslim koy rataan la ko moom moomu nga xam ne mooy muslimu ilay bu ko neexee mu sudi salam bu ko neexee mu defal ko salam ko dina topp ak màkk bi si lu mel noonu waaw ñoom koy rataan la laa ko mu rabbi mu nga mu ne wayn ak te mooy muslimu ilay ñu sànniloo bu ko neexee mu defal ko salam ko noonu bu ko neexee bu ko nga ne wayn askan ñoom bu ko fa defalee nag da ngay indiwaat màkk bi si lu mel noonu wala xëy na dama continuer wayn askan ñoom salam la nga ayawaanan li nda def te muy rastumaan laa ko dogal awaxtaan wala attaar yàlla dogal mu alko wa salam salam ko rek saadi sin aji sote waaye nag wayu togg def na topp jaani aji bon moo xam ko ba ma ma fu mu doon dañ koy topp mu dem indi mu mel noonu maanaam restuma daal boo ko defee nii ñu def koy benn waaye alak wala yow mi ko joxe woon ah salam sa yëngu waaye nag moom da sa ko alak nga indiwaat mu mel noonu dama ne woon sàtt salam ne bu njëkk ba mooy xattu restuma li ci lii sàtt ñaareel ba wa an laa yakkoona aji yu nekk sa amee bu ñaari ñam la ngay joxe muy restuma ak la ngay topp mu nekk jëmin fihima bu ñu nekk di ñaari ñam balaa naka day nag ñu ñaari tee kon dagañu joxe ñam di topp ñam dagañu joxe wurus di topp wurus balaa koy jël gën a dara daa koy ci lu gën a bari ñu ngi ci moom dagañu salam la day topp lu gën a bari aw aj wala wala lu gën a rafet dagañu salam la lu ñaaw di topp lu gën a rafet ci la rafet kan ak dina ko safaan dagañu salam la lu gën a rafet da nga def di topp lu gën a ñaaw balaa ñu tali fan rek ñu ni faw kon nag ñu ni faw mu ilaa ñu tali fan rek boo wut sax tali fa wuute na alman faatu ngel ñu maanaam la ngay salam la ak la ngay topp bu dee wenn xeet bu ngeen la wuutee kon dagal mu taalam kafaarihi umum naka aji gaaw ji mbaamum sëf sun ahraadi topp mbaamu sàmm mbaalu seen ñi boo amee mbaam mu gaaw bu ko salam de topp mbaam moo xam ne wulleeguñu dagal na salam la mel na mbaam mu gaaw solo la bu topp yaari mbaam yoo xam ne ay mbaam sàmm la wa saa bi say lin ak fas mu mën a daw lool dagal na salam topp yaari fas yu mën ko daw laahim laa jëne ko ma cal cal du wuute di dañ loolu fas mu mën a dox dox bu gaaw rek fas mu mën a daw la nag kooka moom sëriñ bi nee na cal du wuute di dañ ilaa di ka ilaa di ka jëf taw nin ndañ danañu ci fasu par fasu par nag moom mooy fas yooyu nga xam ni dañoo gàtt lool dégg nga de kon su boobaa moom ba ay nga salam ne ko bo dégg nga de ñu sa mën a tal di topp ñaar yoo xam ne ñoom mënuñoo tal ba jamalin ak galeen te suñu gudaaj te suñu am gudaaj bay di sëf ñaar dagal na salam la di topp ñaari jigéen waaye wa suñu xëgër dañ suñu xëgër def na lool dégg nga de sëriñ bi nee na aha wa wa di sëf suñu boobu tamit danañ dana nekk di sëf ji ko jiitu maanaam galeen ko maanaam galeen goo xam ne dafa mën a daw bu baax parce que dégg nga de dagal na nga salam ne ko di topp boo xam ne mën ko daw nee na kon wata wutal njëriñ dana nekk ba tey dégg nga de bu ko watul bàqal tapp nañ la la mu mën a tëj am doole lool dagal na salam le dégg nga ne di topp yaar yoo xam ni dañoo néew doole nee na wala un saaton ci jigéen la wakat la dañu wutal te wakat la dañu saatu wutal toom ak la mu taw wutal njëriñ la dàq bu bari tool lool dagal na salam topp yaar yu bari tool wasaay daal saari si mu du wànna ba moomu daani mooy matala xar xar yëpp maanaam dagal na salam le mu bari tool lool di topp ñaar yu bari tool parce que rek na salaa ko wutal loolu am nañu loolu nañ leen jëriñ waxata xëy na ak ñaar yu ndaw ba ñaari yu ndëf yu ndaw dagal na salam la ci kër gi di topp muy mate maanaam nga salam la ñaari xar yu ndaw di topp mel xar yu mag waat bi ak safaan ba salam la dégg nga day ñaari mel mu mag di topp yaar yu ndaw aw kate ni wala mu ndaw dagal na salam la ci kër gi di topp mu mag waat bi ak safaan ba te mooy salam la mu mag di topp mu ndaw waaye nag lam yu addon doon di jiggi ci dal mu saabana ci jëmti xaboo te mooy mu ndaw ma nga salam la ci topp mu mag duñ ko yar ba mu mag ñu jëlee ci mag waxtu la jàpp nañ sama daan ala xalaati ci ta loolu am na ñu loolu sax dagal maanaam ram la bu ndaw di sax bu mag wala sama bu mag bopp nga am na ñu boobu dagal mooy ala xalaati yi dégg nga de sëriñ bi nee na xalaat bi ñu ci doomu aadama moom itam da nga naan mu jógee ne la maanaam cere bi tam xalaat bi ñu ci doomu aadama a wax na ni ak dax moom itam nga naan dagalul salam ne bu ndaw ba du sax bu mag dégg nga de ak salam bu mag dañ sax bu ndaw ba kooku dagalul nga ne ko gën ñu ci ak da nga de saxir sayri kon nag ci sabiri dog mag day da nga koy yem ci lu dul ndëf rek ba nee la ko saxir ñu ci sabiri daga na sala ne ñaari ndaw ci sabiri da nga koy yem ci lu dul tàkk rek maanaam yem ko ci ay gëléem wala ay yeneen da nga koy yem ci dàq kon nee na dàq moom ak doomu aadama sala nañ nga salam rek dégg nga de bu ndaw ba di topp bu mag ba kon sala ne ñaari ndaw yi lay topp yu mag yi da nga koy yem ci yeneen waxe ji kon ak ak sayri jiraaji tudd xal yi seen jiraaji tal da nga naan dagal na salam la di topp ñaar yoo xam ni gudd ñi fël ñi kooku dagal ah su fay di topp beneen kooku dagal mooy boo xam ne guddul sol waxatee kon ak jaaj ak jaaj dox dagal na ko indi seen topp ñaari jaaj doon yi yoo xam ne yëpp lañ ko ci dox parce que jëm tamit ak dama nekk ñaari xeet ñaari xeet yu bokkul dagal na kanam la di topp xeet leen kon nag saxaar bi doon ci dëggal na alman faa ko leen misaalam ci rafet fukki naka wa aji wayas di wëtteenu mag waxataan ak wëtteenu ndaw dégg nga de wëtteenu mag mooy wëtteenu wayas nga di ko dagal na kanam di topp wëtteenu ndaw ndax ñoom fukki ñu de ñoo bokk xeet waaye nag fukki ñu ay njëriñ jil xeet ya sax xaw naa wut bokkuñu tam waaye laa jamalin dagalu salam la jënd gëleem de ci jamono topp ñaari gëleem nit yu mel ne moom dagalu bëgg na yoo xam ne gaay nag aadu maak dañ ci ñoom ñaar maanaam dagaa salam la jënd gëleem topp ñaari gëleem te ñaari gëleem yi ngay toppee dañuy daal di daaw ëgit la jënd ga léegi ñu def dëgg def toog su boobaa lu tax léegi ñu di lu tax loolu di li terewu su boobaa njaay njaay bu ànd ak nag la dégg te salas bi siyaada ci ñu ngi ci biir mu wax njaay bu ànd ak lépp ak salas bi siyaada ci yëpp ñu ngi ci biir sëriñ bi nee na dafa teerin ak nganaaw dañu mënoo xam ni xamalees na ko rek moom nag dagal na salam nganaaw la ñu xamal rek dagal na salam la dégg nga de di topp ñaari ñu xamalu rek laa di dégg ñu ko mën nan dégg nga de da nga naan dañu xalam ci nganaaw nen maanaam te dañu salam la ganaar bu mën a nen di topp ñaari ganaar yu mën ko nen kooku dagal na sëriñ bi nee na wasu kóolu suñ góor moom itam du wuute ñu dalil dagañu salam le bu góor di topp ñaari jigéen wala unoo ci jigéen du wuute ñu dalil dagañu salam le bu jigéen di topp ñaari góor wala adama doon ci adama mu xas ak sëg du wuute ñu dalil maanaam jigéen bu mën a ëpp lool du wuute ñu dalil ëngam jot jot gisul nihaayat dayat ci salam wa sab tan topp du wuute ñu dalil ëngam jot jot gisul nihaayat dayat ba si saagin rek la moom itam du wuute ñu dalil jël gisul dayat waaye bu fekkee nag tay togg jigéen bi moom àgg na ci dayat mën a togg ñëpp di ko soow àgg na ci dayat mën a ëpp ñëpp di ko soow àgg na ci dayat mën a rek la lool dagal na salam di topp ñaar ñu mënul lool waaye bu fekkee àgg rek nag du dal wa kitaaba bi ak bind da nga demoon itam da nga wuute ñu day ba tax jàmp mën a bind nga di ko sanam le di topp ñaar ngeen agul ci nihaaya bu àggee ci bàyyee ba mu dagal nga ne wuute ñu sanam le lépp ku nit di topp cam fargulu lam la lépp loo joxe topp lu mel noonu loolu nga rek la dama ne woon sàpp sanam le juróom ñaar bu njëkk ba xab rof simaali ci biir sàpp ñaareel ba wa an laa yekkoonaa sa amal sàpp ñetteel ba wa an yu ajjuna ak duñ ko digal bi ma xam loolu ci biir bu ñu xam mooy sàpp ñetteel saa yi dañ guddi aj ëpp alaa nit seen genn wàllu weer sa nga jotee rof simaal ba ak fan ngay joxe nit ñi ci biir te nayroo ci nit nayroo ci mooy première sàmmee ci weeru fukk nañ ko tëdd ñu ko bu weeru sàmmee ceroo nang ma ko andi jëf sama jëf wala xasaaji ak góob dagal na jib salam góob ni nga jox koy boo xam ne yor na toolu ceebam wala toolu suuna nga jox ko koy fukki junni bu ko topp ñaari bërigoy ceeb wala ñetti bërigoy suuna bu góobee joxe te dracé ak mboj boo ko dee jox ma dagal na waxu doon aji ayi bisul way aji na bu way aji yi bisee nga andil ma li ma la joxoon jox ma waaye su boobaa waxtu dana xalamet na niqaatu mustami niqan nis ëpp maanaam ne dana bay ci ijaaja bi ñu ñëwee rek la la indi ñu ne faaw sàtt nañ ci waan ya dirib ma ëlmi kaay bi alaa ni ci sonn bu fop ci ci salam la ni na mat genn wàllu weer mu ne ilaa ñaq ba dana dégg na ba lépp na ko fi di bale di cin yooyu te yow may ni toll ci doxu ñaari fan seen xaraja leen seen ne ñu ne seen te waxtu woowee moom muslim yow mi salam le woon da ngay daal di génn ànd ak sa nga salam le woon ci moom dégg nga de di dox di bëri ci jéeri aw wala muy dox ci jéeri tey di leen tudd ngelaw ne ko tey da ngaa salam le benn waay jox ko xaalis war ko mu war laa andil fukki farak juróom dégg nga de a jox ko lu mat 500 mille wala lu un million ngeen mënu la waaye nag léegi nañ génn buñ demee Mauritanie wala bu ñu demee Mali ma jox la xar yi nga ñëw nga ñibbi kooku moom topp suñ ci moom fukki farak juróom su dee bu ngeen génnee dox ñaari fan dañ ngeen àgg da ngeen ci jéeri ji wala ngeen dox ci jéeri mën na laa jébal muslimin ilayhima mooy far ya nga daal di muslimin fihima nga daal di ñibbi ma ne wala suru falam bi ñu gis ci weer di ay rek nekk na ci seen kaw maanaam falam buñ ko liggéey ci weer weer ya teroo rek waaye wasu na mos nekk na xam nañ ko suñu weer wi daal di damm dina raadu ci weer wi ñeenteel su dee da nga ne ñetti weer te da ngay tàmbali ñu gis ni booba xaaj la sa weer wi ñeenteel la ma waaw waaw ne wa dag wa leen wa dagal gis salam wa leen dafa gis salam ilaa rabbihim ba lool nga ne ko weeru rabbihu awal allamu ay di awali ci njëlbeen bi bu ñu nee di awali ci njëlbeen ga lay ay dégg nga de maanaam mooy bu weer wa teroo rek guddi gi dëkk ga ak guddi ga topp nga ne wa xasana yàqu na salam ñu gis ñun ci weer ndax weer dafa yaatu alal ma ko li ko la ñuy wax jële ko maasaari yi mu jële ko suñu ko ndax weer dafa yaatu ba fokk ndax fokk da nga naan ñett fan jëkk yi wala ñett fan yu mujj yi wala ñett fan ci digg bi moo ko waaye laata ko yoon yëpp mooy dana ne ci benn bis de boo ko nee bis sàngam ne ma ko bis moom du far ndax bis moom dafa woyof diggante bi jant yi fenk ci lu koy rek la dama noon fàtt salam ne juróom-ñaar bu jëkk ba xabdu raxtanaa yi tulihi bu ñaareel ba wa an laa yettanaa sa amee bu ñetteel ba wa an ngir àjjana buñ ko dugal bi ma amoon fàtt ngeen ko ba wa an ngir basa ak buñ ko fa sax di aada ci dafay baax maanaam la ngay salam la di ko topp nañ ko topp ci baax ñun seen in moom natt na nee ko natt sàngam aw wasin wala mandax aw at yi wëmbir buñ la natt mooy mat ak ñaaru xar ak pax camal aw wasin wala mandax barigo wala ñaari barigo wala fukki barigo léegi aw xadidin wala wàññi bu dee ay malaana wala fukki piis wala ñaar fukk wala xangal kon maa ne ni ko garanaat su fekkee ne da ngay salam la di topp li ñu naan ruuma benn xeetu suñu dégg nga de kooku moom itam waxee sama teef la ko di xëy ci jëm dañ ko naan dégg nga de garanaat boo xam ne mat na nii andi woon ci day moom kon tey jii ñoom moom itam dañ ko naan ñoom di sol nangam nee na aw di am lu wala ci sëf daga na salam di topp aw say waaye nag su ci xasee di ci dana ne ci ah ngub ci kanam ci dafa xamal aw di sëf wala aw aw am lu wala sëf su ci xasee ci dana ci ngub nga ne ko sëfu ngub waa ji sëfal nag sareet xam fees mu jaay la aw di sëf wala aw say ci xasee ci dana ci wala nga ne ko say di sol nangam waaye laa di ci daanu ko mu aw doon salam na di topp aw doon ni ko da nga may jox aw doon ci sa tool may ma yàq ko jël ñax ma fay la nangam loolu daganul ndax aw doon mën naa ñax ma mën naa bari mën naa néew aw di taar wala ci nga xam ne dagan nañ salam ne ci loo xam ne dañ koy naxal maanaam la ngay topp daf la ñuy ci ma nekk di la ñuy naxal waaye nag mënu yaa jam yàlla ndax da nga ko naan kon di ko jëm ko sa ci nangam da nga def lu day nangam aw yaatu wala day dëkk di ci lu ñuy naxal wa yëppoon wax ko fa la ñuy naka lu ñu doon lii loolu nga koy wax ah saa yu daal am na ci yàlla jëm su fekkee daal lu ñuy naxalal ne ko da nga ko naan apparpare nangam ndax na ngay indi la ngay apparpare ni ko lu day nii saa yu daal yenoo xasal yàq ni salam suñu dikk bi ma toll ci dig bi ñu réeré dig bi ñu réeré nag moom dañ koy sañ ci mboolem xeet yi daal sëriñ bi nee na wala boog nga ni ko parce que yàq na salam da nga de li ma toll ci lëf bi lu ñu réeré dañ koy toll ci dig li ma toll ci lëf bi lu ñu réeré wa in nasa boo doon te xaq même ak sene na ko ci lu ñu xam da nga de pour tey wàcceet lu ñu réeré la gën ko lu ñu xam loola mooy su fekkee ni da nga ko ni na nga ma indil saako bu mat bari wala mbuus mu mat mat ak mat mooy mat su boobaa ñu bàyyi saako ba bàyyi mbuus na dem indi bari wala ñu indi mat loolu mooy wa illa sa boo nem ak sa ne ko ci lu ñu xam pour koy wacc ci lu ñu yéene rek jàpp lu ñu xam da nga ko ne nañ ma indi saako bu mat bari ñu bàyyi saako ba indi bari wala mbuus mu mat mat ñu bàyyi mbuus ma indi mat mat mooy ñun ci àndaar ci mat wa jaa sa dagal na nag da nga de salam da nga de gis ñu mun fii di siraay ci xam daayira bi xasabul góor maanaam nga ne ko na nga ma indi bis boo xam ne mooy xasabul góor bi mu ay nañ sirikini ràññee naa nga ma xasaba ko way bëtt ñetti ndab la ñuy wax way ba nga salam la di ko topp yéen wa am na suñ ab duusin salam la di ko topp yéen wa fi way baati ñetti dagana salam la di topp ay way ba dégg nga ah waaye xam naa suñ ab duusin xaw laa ni am nañ ci ñaari wax ñu dina wér ay nas daaya dama noon fàtt salam la xabdu rasulaayi kullihi wa an laa yakuna fa amee wa an yajal bi mahlumi wa an yubbat sàpp juróomeel ba wa an tubayina adubri li sifaati ay melo la ci yoon xam tax tamit dana wuute alqiimatu xayma ja ba nga def salam islam bi aadatan si baax kon nag dina ko xeet wax xeet wala salam ne ba nga def na nga ko biral ba nga def bu dee doom aadama wala fas ba nga def na nga ko ne fas sangam laa bëgg ci xeet wu mel nangam wala jëri ci rafet dana ko biral wala daati ak ñaaw wa bay nooma am na ci diggante rafet ak ñaaw yëpp na nga ko biral wala wu ni melo wax su fekkee ne luy am aw melokaan na nga ko biral melo wax ndax am na yoo xam ne day am melokaan ndax mën naa am mu ngoog ñu mën a tànn ci ayabaan ci lundat mën nga ni fas wu weex wala wu xaw bàcceer am na ñooñu moom lañ gën a bëgg wa taw bi malaani na ko biral melokaanoo wala asali ak lem na ko ko biral wala maraaw ak farwaay ba fa yem booy lekk wa itam it war nañu ci tàndarma boo dee tàndarma it da nga de na nga biral moom itam melokaan fasoo tàndarma bul fàttali ma dina ci mën a war alayhi ala nabiyina wa alayha afdalu salaati wa afsa taslim da nga de fekk tàndarma yu bare fa nekkoon ëpp na téeméer waaye na nga biral xeet waxoo ci jëmi boo ko dee kanam la na nga ko biral wala yet wàll jëmi jóge wal xadar ak cam na nga ko biral jëmi bay nangam wala wu mag wala wu ndaw ba fil burri war na mu dolli ci da nga def maanaam fekkum burru dana biral ci fekkum burru juddati oo rafet wa mal aw ak fees ga lay fekk mu rafet mu fees dana ko dafa newut na sama ñu njëgëb bi ima da nga def ci fees ga ak natt daa fees bu fekkee ni kii ah njëgëb bi ay wuute maanaam fekk mu fees ne mooy ëpp njëg ak mu ñàkk naa fees yëpp na nga ko biral wa tam raaw fekkum sam raaw bu dee moom da nga def na nga do na nga biral sam raaw bu dee sam raaw ngay salam la di ko topp aw mahmoola tan wala mahmoola na nga ko ni sam raaw laa bëgg wala mahmoola bi bale bi ci réew xumaa boo xam ne sam raaw ak mahmoola bii ngeen ci réew wala ñu ne xanaa dañ leen koy bayal wala bil am nin doon dañ koy nekk ci sëf nga xam ne dañ leen koy indi ci sëf kon su boobaa boo koy salam la di ko topp na nga ko biral di xilaat ñu tëgal naa ñu moom boo tay salam la jërul ngay biral ndax fan mahmoolu mahmoolu rek moo fa nekk ba saani sam bokkul bu dëgg de fa sam raaw sam raaw rek moo fa nekk boo salam lay topp rek moom lañ indi wa naqiin sëriñ bi nee na bokk na ci it la nga xam ne moom war na wa naqiin ak bu set da nga def da nga ko biral na ko